xaaral ma toog sax ndax wax ji leer parce que yàlla bu la tàccoo feccoo mu tàccuwaat la feccoo mu tàccuwaat la feccoo ba muy ñetti yoon dootoo fecc ba yow mal xiyaam te loolu moo nar a dal Sénégal yi Macky du ci perte Sonko du ci perte ñun ñoo ciy perte barki Serigne Touba Mbacké li ma bëgg a njëkk a xam ci mbir yi mooy lan moo waral genn yenn tekk sénégalais yi lan moo waral yenn tekk média yi ñu ne bokk ci seen ruq ne ñoom ñu ci wax mais nag italiens yi ne nañ noonu si parle kon la bocca piena maanaam gémmiñ gu lokk gémmiñ gu fees du wax te dafa am ñoo xam ne ndeysaan dañoo log duñu wax sonko du ci perte Macky du ci perte parce que sonko wàllam wéy na te lim waroon a def def na ko lim waroon na wax wax na ko wax na lépp Macky nag dina dem day dem waaw waaye day seet ki ko neex ki mu mu teg ko fi parce que nee na moom moom réew mi sonko Macky nee na moom moo fal boppam Macky nee na réew mi da koo donn kon ki mu juboon ki ko neex nga xam ne bu toogee ëllëg njabootam du sonn moom du sonn te régime bi day continuer nee na koo koy gëmuma ko gëmuma ko gëmuma ko gëwuma leen gëwuma leen gëwuma leen bu leen leen gëm bu leen leen déglu ay dil la lépp dil la may wax mu dend ak sëfër bi nag bu waxee jox ko mu wax delloo ko nee na mooy sëfëru tata xaw ma ngeen mel ni ay règle douloureuse gis nga Sidi Lamine Niass ndem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm ak Ousmane Sonko képp ku leen di déglu wala nga del leen déglu lii waxoon nañ ko ñi faatu ci bis bi yàlla na leen yàlla yërëm te xare leen àjjana doomu aadama yi da ngeen di sacrifier li yëpp dil la bu ngeen dekk Ousmane ko waxoon na ko récemment yàggul dara nee na bés a ngi ñëw ci bés yi di ngeen créer seeni dil taal dëkk bi créer seeni bomb ne parti bi la. waxoon na ko éveillé na conscience yi démb tey doog a ñëw Seydi Lamine Niass ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm newoon na réew mi du baaxee mukk ci carte bés a ngi ñëw jeunesse bi dinañu yeewu dinañu éveillé conscience yi barki Serigne Touba Mbacke mooy defar dëkk bi